Fifty Cent doomam bu am vingt huit ans tribunal la dem pour pension alimentaire bu ko baayam war jox waaye tribunal dafa décider wax Fifty Cent mu koy jox dix mille dollars weer wu jot waaye doom ji bañ ni papaam cent mille dollars la koy jox weer wu jot mais papam proposé ko jàppale ko comme que am na vingt huit ans mu ubbil ko benn entreprise mu ciy liggéey pour amaat dara waaye ba tey doom ji dafa bañ ni ko cent mille dollars yi nga may jox waaye 50 Cent moom dafa sari ni di joxe passion alimentaire ab waxambaane boo xamante ni am na 28 ans bu war a am ay doomam war leen a dundal et normal vraiment ku dem ba am 28 ans moom war ngaa mën a dem liggéeyi donte moom bañu la jox mais bëgg na la ubbil entreprise pour nga liggéey mën a gañawaat yow nga bañ ni loolu la lay fay waaye dégg nga li ko 50 Cent wax moom doomam jooju nga xamante ni daf doon laaj passion tribunal ni ñu jox ko dix mille dollars moom mu ni buggul loolu cent mille dollars lay laaj par mois